société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di yi ba léegi njaw ma di desu xam bi na yéenekaay gi nee na direction générale des élections nee na coalition Yewwi Askan Wi seen liste titulaire yi waaye tamit benn bokk yaakaar seen liste suppléant yi munta bokk ci élection yi waaye nag terewul ñaari liste yëpp bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Benno élection yi waaye du am ay suppléant Yewwi Askan Wi dafay dem ci élection yi waaye du am ay titulaire ay waaye tamit ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane dañoo gis teg pression état bu Sénégal rawatina jamono ji nga xam ne maanaam dund Ceerno Ba maara détaillé ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi ak njombi yeeg scandale yi nga xam ne am na ci ak lu soxal wàllum éducation bi loole lépp la coalition Yewwi Askan Wi bëgg a ngir nag anticiper campagne électorale bi yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na élection législative yi nga xam ne moom la ñu tëg bala am na juróom-ñetti liste yoo xam ne wax nañu ne ñoom war nañoo mën a bokk ci élection yi coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi a mooy ab recours ca conseil constitutionnel Ndiaga di expert électoral xelam màcc lool ci lu jëm ci wàllum élection nee ministre de l'intérieur amul sañ-sañ di génne ay arrêté di invalider ay liste maanaam amul sañ-sañ daal di dàq ay liste ak nekk fi di wax naan bi war bokk ak bële wurta bokk Ndiaga Sylla nee Antoine Diome ministre de l'intérieur amul si sañ-sañ yéen a kaay gi réew mi quotidien nee na réew mi nar naa yëngoo ndax ñi nga xam na ñu moom la ñu dégmal ci place de l'Obélisque ba tey ci biir journal bi njiitu réew mi di président Macky bi ñu ko laajee digganteem ak Ousmane Sonko ak opposition bu Sénégal la mu xamle nee na kenn ku nekk am na sañ-sañ opposé maanaam ak fi sa yëg-yëg toll moom Macky Sall nee na bu jaar dafa war a am opposition boo xam ne bu dëgër këcc lay doon opposition forte moom Macky ñu laaj ko ne ko Macky Sall ñetteelu mandat bi maanaam loo ciy wax na du ba élection législative yi jàll mu doog a wax ci lu jëm ci waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom Déthié Fall nee nañu nag lii xam ne moom la ministre de l'intérieur wax loolu nag provocation la waaye nag ñoom nee nañu danañu riposte yéen a kaay gi de la Tribune nee na des élections li xam ne moom la waroon a def maanaam defu dafa waroon am fulaam jël courage ma daal di xam ne ñooy waa Bokk Yaakaar yéen a kaay gi bi dañu ko daal di violé andi na ci ay deuxième yéen kaay gi nee na yi nga xam ne moo doxoon diggante jàngalekat yi ak gouvernement bu Sénégal ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ñoom ñoo tooñ ñoom nee ñoo def erreur yéen kaay gi di wal fajre nee na en tout cas ji askanu Sénégal sonn nañ ba maara de taale li nga xam ne nag diwlin diwlin gi cher na loola yéen kaay gi nee butéelu diwlin bi nga xam ne moo doon def vingt bi vingt bi doon fi jar dix-sept mille ñu ñu ne déetawaay 600 diwlin gi ni mu yokkee nag jéggi na dayoo yéene gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Tahirou Sarr mi nga xam ne moom la ñu tuddoona ci 94 milliards yi Ousmane Sonko tuumaloon Mamour Diallo na daf koo ngembala Tahirou Sarr moomee tuddaat nañ ko ci wàllum escroquerie wàllum détournement wàllum njublan koo xam ne toll na ci 7 milliards yu fekk 250 millions usage de faux loole la ñu tuumal Tahirou Sarr moom la ñu tuumal Yoff APEX toll na si juróom-ñaari milliards yéene kaay gi de enquête ak réew mi ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu giraawaali gi nga xam ne fan yi ñu génn moo amoon ci hôpital Mame Abdou bi ci teewaaw na am na nag ñetteelu nit boo xam ne teg nañu ko loxo yéene kaay gi na na moo taxit liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéeyee ci hôpital Mame Abdou jamono ji nag gàllankoor nañ wàllu wér ki yaram ke maanaam demul di dikkul mbay laar dafa daal di tagg témbe yéene kaay gi de la témoin nee na nag nga xam ne mooy teewaaw na directeur des ressources humaines moom la ñu arrêté lan moo tax ñu teg ko loxo journal xëy na di ko leeral yéene gi di bés bi nee na éducation beek violence sexuelle bi nga xam ne moom la wax ci biir njàng njàngale me gars yi nag nee nañu ak li rapport bi wane rapport bi li mu wane mooy violence sexuelle yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci njàng meeg njàngale me 42 pour cent enseignants yi la jàngalekat yi la maanaam téeméer boo jëla ñeen fukk ya ak ñaara ci violence sexuelle yi nga xam ne moom la def xale yu jigéen yi ci biir école yi maanaam jàngalekat a kaay gi de